ñaari message yu ma bëgg a adressé benn bi ma koy wax magistrat gis naa démb seen président naan day def interview di wax ay wax man de man Ousmane Sonko dinaa continuer citer nommément magistra bu fi def lu dul yoon mu tudd ko ndax du ngeen yàlla du ngeen yonent nit ngeen comme ñëpp dëkk ak nit ñi askan wi moo leen di fay salaire da ngeen nekk seen bulle foog ni yéen ay nit exceptionnel ngeen ko yéen magistrat yi mais nit ngeen bis bu ne ngeen lor nit ñi ci lu dul dëgg loi ne lii la ngeen bàyyi ko def lii parce que dañ leen jox commande ba pare ne kenn du ci wax pour pourquoi du magistrat yépp nag mais magistrat bu fi deful naka su noonu ñu wax ko man maa tudd Serigne Bassirou Gueye man maa tudd xam jàlloo man maa tudd procureur bi dem taay nu mu nu mu tudd sax may wax mu naan il faut di courage xaw ma lan ñàkk courage weesuwul raqatu gannaaw une fonction di teg nit loo ko warul teg bu weesuwul loolu Amady Diouf man maa ko wax les actes qu'ils ont son sont des actes ki qui n'ont rien à voir avec l'exercice l'exercice de la profession de magistrat te dinañ leen yàgg indexé nag ku fi def lu dul noonu ñu indexé la ku ko bëggul na nga tegu ci yoon def yoon ndax kenn ëppalewul senegal fii kenn ëppalewu fi sa morom da ngeen di def loo xam ne seeni mbokk magistrat yépp nee nañu lii du yoon avocat yëpp nee nañ lii du yoon professeur d'université yëpp nee nañ lii du yoon ngeen topp bëgg bëgg Macky Sall bëgg a lor nit ñi ba pare ne kenn du leen indexé. Sénégal dafa di jàmm rek de mais su doon yeneen réew yi nit ñi réglé woon nañ ko neneen bu yàgg saa su fi réew mi tàkkee ay magistrat ko taal ci décision bu ñu jël te waruñu ko woon jël même rapport Union européenne bi si élection yi wax na ko li xew 2022 ba ay bakkan rot ci su magistrat yi defoon seen liggéey bakkan du ci rot ñoom ñooy ñan xanaa duñu nit ñoo xam ne yéen a jàngandoo foondoo di lekkandoo defandoo lépp ñu bëgg a teg seen bopp lu kenn xamul parce que nee nañu ñoom daal am nañu benn prestige boo xam ne lu leen neex ñu def nit ñi duñu ko nangu nag te bu ngeen bokkee ci xeex bi ñu ànd xeex ak yéen bu ngeen jëlee parti di politique ñu face à face ak xeex ak yéen parce que moom leen réew mi foofu la senegal toll ku bëgg jàmm dangay jàmmal ña ca des jàmm mënul nekk à sens unique bis mu ne ñu jàpp nit bu deful dara benn waaye koy jàpp dóor ko mandat dépôt dem toog këram moom ak njabootam di naan ataayam di lekk ceebu jënam loolu fan lañ ko teg loolu ban rapport la am ak magistrature il faut que ça saret ñun ragaluñu leen de te xam ngeen di ragaluñu leen faalewuñu leen suñu respecter institution bi la ñu respecter mais l'institution ne vaut que par rapport aux règles qui la régissent et qu'il faut appliquer de la manière la plus conforme à l'esprit et à la lettre bu ngeen ko deful ñu wax ko te ci réew mi ngeen dëkk ni ñun ñëpp di féliciter di encourager tous les magistrats qui résistent encore ndax bëri na dernier mouvement bi tous les magistrats qui disent non ñoom lañ jël yóbbu sànni fu sore sore sore dem jël ñoo xam ne ñëpp xam nañ seen jaar-jaar ci magistrature yi ñii ñu yóbbu leen cour d'appel pour que décision bu amee en première instance ñoom ñu mun ko confirmer en appel wala ñu infirmer ko en appel ñii ñu yóbbu leen en première instance pour ñu recomposition recomposer une chambre pour mun a am li ñu bëgg parce que ñi fa newoon duñ ko nangu mais loo xam ne dafa ne fàng Sénégal yëpp nga koy gis magistrat nag ngeen jéggal ma ci kàddu waaye magistrat bu fi dof doflu Macky day dem de jeex na 11 mois moo ko fi dese su dee 500000 li ñuy yokk ci seen salaire moo tax ngeen di jël ay décisions yoo xam ne tegul fen dama jàpp ni jaru ko te ngeen moytu di lor nit ñi ndax ñi ngeen di lor dañoo am njaboot li yéen te seen njaboot moo ëpp seen njaboot ñoom ndax dañoo am njaboot ci deret waaye am ay millions voire des milliers voire des millions de personnes yu ànd ak ñoom yow nga tëju sa bureau taal sa clim ne kii dinaa ko tere nekk candidat kii naa jël décision bi ba pare foog ni dañ toog di la seetaan du fi am de ma teel leen ko wax du fi am